dañu des nag ci wàllu politique seex ñu doon toog ba ci yàgg dégg ay audio yi circulé seex di ciy wax wax ji doy waar non doy na waar seex yow loolu noo ko mën a waxee loo mën a waxee maanaam ay audio di ko tas di wax wax joo xamante ni dañuy foog ni ah doy na waar daal seex waaw xam nga euh, Naël campagne bu jotee dañ ni nit ku ne da ngay utiliser moyen bu ne rek pour faire déstabiliser xam nga sa adversaire te pour pourtant ñu ginnaaw raay on pèse on pèse pas le le poids quoi mais nag sunu tur yegg na foo xamante ni am na ñoo xamante ñoo njëkk engagé wu ci politique à ginnaaw raay te yegguñu fa affaire yi parce que ñun deux 2019 lañ engagé wu am na ñoo xamante ni parce que 2014 fekk na ñoom ñu engagé wu ci politique te it li ma wax sànq rek man dama dem campagne ñëw toog après taal sama téléphone téléphone daani ah waaw ma gis benn audio bu circulé mais yàlla mi nga xam ne nit am na ñoo xamante ni boo leen bëggee weer suñu borom moo lay weer léegi nag ki nga xam ne moo monté audio bi moom bi monté audio bi am na bi bi jeex dafa xamul ne ay professionnel la ko seqal parce que audio bi muy jeex am na benn photo Lamine Gueye profil buy folotee ca kaw xanaa du ma ni ànduma ak leader bi pare jël photom di ko def photo profil di def ab audio di di di di. defal ndànk wàllu politique lépp ci am. man nga koo def exprès boo xamante ni est-ce que du demeewul noonu est-ce que demeewul ni yow yaa monté sa bopp loolu wax jooju parce que baat boobu ñëpp xam ni sa baat la. non baat boobu du sama baat xamul tax du xamul tax sama baat euh, parce que kooku ni mu doon waxee. ak bi muy bind man du ma bindee noonu te du ma waxee noonu te it du ma ragal. su ma demoon ba bëgg a wax benn affaire damay am naa sama page compte sama compte Facebook bokk na ci compte yu ñuy gën a suivre à xombal sama compte ci la bokk Serigne bokk na compte yi nga xam ne tey Twitter ñu fi gën a suivre tey pourtant seen directeur bu xombal point net moom moo créé sama compte boobu de xombal moo koy compte boobu de Twitter bi man leen gën a suivre à xombal kon awma leen loo xam dama koy ragal a wax te Lamine su fekkoon ni nayel dama bëgg wax Lamine benn affaire bu ñaaw mais su ma laa koy wax. Lamine Gueye lu ne defal na ko sama papa avant may dugg ci politique lu ne defal na ko sama tante ji jëkkër avant may dugg ci politique defal na ko samay mbokk la preuve ki xam ne mooy euh, sama soxna ware kii mu bokkal ndey ak baay mooy mooy moom mooy premier njëkkeem te pourtant jëkkëram kan la Cheikh Mbaye Gueye kan la àndal Lamine ah est ce que su ma waxee Lamine lu ñaaw waxuma ko Ngoné Ndoye non du ma ko def melu ma noonu yarewun ma noonu mais nag comme maligance moo egg foo xam te ni gars yi audio bu ne man man Ndeye moo ma wax ni ma Cheikh dama bëgg nga benn audio dafa am benn group boo xam dañu ca bokk ñu doon ma leen toppatoo récépissé ma sonn nag jamono boobu waa préfecture woo ma ne ma sa papier yi mi ngi nii kay jël si ko loola waral nag ma ñëw ma jël sama téléphone audio bi sax ma ngi ak man suñu paree ma jox leen ko leen euh, Ndeye Kairé ngi leen di nuyu ñëpp di wax ni leen euh, maanaam euh, tellement que préfecture dañoo xaw a bari ay dossier loolu tax ma dem jëliwaat kayit yi andi ko mi ngi nii ma téye moo tax ma ne xaaral ma defal la audio wax la ni la seen papier yëpp mu ngi ak man léegi nag loolu la gaa yi dégg pourtant nag après ci biir groupe bu Lamine Gueye man après fi ma toog à l'instant de trois minutes am naa toutes les audios yi nga xam ne ñoom ñu ngi ko doon waxtaanee ci biir gox di wax ni yéen ñi ngeen ko seqal na ngeen xam ne ay professionnel la mais na ngeen xam ne Cheikh Faye mii ab professionnel la kon nag def leen attention te ngeen gaaw dindiwaat audio yi ndax Malick Camara sax dindi audio yi parce que mu ko eslati dindiwaat na ko ndax da ngeen xam ne ay professionnel ngeen ko seqal gaa kon nga xam ne du man foofu nag moom ma ci lu ma ci mer ma ci lu ma ci wax dama ci wax ni politique moo demee noonu mais nag xombol baabu Thiam moo wax ni xombol du ab dëkk ak kër la kenn ku nekk xam nga la sa waa ki nga den la muy sóor añ ak la ñuy ndékkee ak la ñuy reere kon nag lépp nag na mënoon mën nañ ko rafetal rafet na sax te benn problème amu fi parce que politique na ba mu jeex tey man ak yow mii tey bokk ñoon fu mu fàtte tey ñu ngi nii toog te pourtant ñoo bokk maam boo naawoon ma naaw loolu du dara ci politique mais nag li bon ci politique mooy nit ki nga koy seedeel loo xamante ni nekkul ci moom ak loo xamante day rester gravé dans les cœurs loolu nag la yàlla def ko beneen bi ci toppit mooy je lance un appel à tous les Khombolois parce que à travers ma modeste personne bokk naa ci kuréel goo xam te ni war naa mën a am ay messages yoo xam te ni dinaa ko joxe au niveau national au local di wax ni jeunesse Khombole il faut que ñu xam ni politique bu jotee ban dem ba ci langue gi maanaam mbër kenn ku ne da ngay ni sa mbër maanaam jox koy càngaay ngemb ko takkal koy téere yóbbu ko fu ne nga yóbbu ko fa ngir bëgg bu am beneen mbër bi mu jàkkaarloo mu daan ko mais su jeexee jeex na man fi ñu toll tey j'ai pas le droit amatuma benn droit di wax ay la coalition gox yu bees wala la coalition benn bokk yaakaar te dinaa joxe benn exclusivité tey fii ci Khombole point net di wax ni man je suis APR parce que li nga xam ne sama wërsëg ci moo ko li ma koy lekkee fi muy jógee wax digg yàlla ci ñoom lay jógee muy le président de la république parce que on m'a embauché à l'université Alioune Diop poste politique la du ma ko nëbb yàlla mi ngi ko jaarale ci magay booy kon man awma sañ-sañu naan damay opposé ak état tey képp koo xam te ni yàlla samp na la fii tey maa ngi ko waxee ci xombal point net ku yàlla samp fii tey ci xombal boo doxee mu jaral la nga dox ñëw ba ci man toog ak man waxtaan ak man dinaa la jàppale dinaa la campagne la te dinaa la accompagner ci sama compte accompagner la ci sama jëm. mais bu ñëwul waxtaan ak yow te nga te sa wërsëg di jóge ci APR ndax man ak ku man doon du dem jàppale ji ko mais dinaa bu vote jotee dinaa dem voter la coalition bi nga xam ne man moo moom moo nekk sama xol man ma dem jàppale leen